Siarat bëggee waataan tout droit fii si Ndianda comme niñ leen ko waxee ndëgu mbër ndëgu mbër ñu toog ki nga yaayu di si tey di monument bu Ndianda nek xale xale bu ndaw nek si lamb ji def ay di prouver nee naa leen fii ak buñ arriéré deux ans ci ginnaaw kenn xamu ko mais jomam fulam ak ren fu ñuy waxee espoir wala ay révélation ci lamb ji dañuy tudd ki nga xamante ne moom mooy monument bu Ndianda mu nekk xale bu mun a bëre xale bu am fulla xale bu am jom ci li muy def mu toog ak yaayam mère nuyu nañ la. maa ngi leen naka yi. jàmm rek kay. mbaa tey ndogu mbër ki nga xamante ne moom mooy sa doom monument bu Ndianda xewle. waa koñ bi teew waa dëkk bi teew ay moromam teew ay xaritam ay papam ay wéjuram loolu lan nga si waxte teewaayu nit ñi bàyyi seen yi te yëpp ñëw fii tey. xanaa kontaan rek. Mhm. yéen a kontaan rek xanaa dinañ ñaanal yàlla rek. Mhm. yàlla ñu yàlla fay. waaw monument bi tax ñu ñëw yal nañu toog ba di ko teeru ca arène ba waaw ñu lay ñaanal yow tamit yow tamit nit ku baax nga toujours damay dégg njom fo pelelum damay dégg seen tur yi seen baat yi di kontaan la leen yàlla fay yéen ñëpp waay fi ñuy xaar monument daal yal na ko yàlla yóbbu waaw ñu ngi koy ñaanal nekku sama doom kese li mu nekk sama doom moo tax may wax moom nit ku baax la yaru xam na magam xam na rakam xam na ay waajuram waaw te li muy def jom la ci dugal ak fula wa bari wul dox toujours mu ngi siy néegam mbaa mu and ak xale yi ñuy def ay lido wante pour nga gis nga fi ma judd ma sax xamu fa bu ma fa demee rek xamal ne dafa ñak pay fula fali ki soxla kese moko fa yobbu fi ma dekk sama kër yaay mu ngi sori wul wante pour pour nga bis gis moni ma. sama yaay fi la dekk man fi la dekk wa légui monument di dom ñu bëggoon laaj bi muy nekk xale di dugg si lamb di est ce que d' nga pour sa doom bëri ah bu njëkk ah. nanguwuma woon de dama ko waxoon demal wuti beneen métier mhm. mu ne ma man bàyyi leen ma ak li ma bëgg mhm. waaw dugal ngeen ko école waaw dem na ba CM1 mhm. mais gis nga buñ doon buñ doon buñ doon def compo dañuy def xam nga dañuy def récitation bala sang wante buñ ko waxoon ne looy woy mu ne xoolal xam nga lu mu doon woy mu ne lu mu doon waxati woy bi sax da doon dem école di ay woyu lam waaw <laughs> nam ta lay togga tukki male <laughs> hmm, démb kese maa ngi koy woy ah, moom loolu la doon woy école xaaral dina ñëwaat woy bi dina ñëw waaw uh-huh. dem ba école di woy ay récitation ay woy lamb waaw buñ ko waxee ne da ngay récité am da ngay woy mu ne damay woy mm-hmm. léegi bu mu bàyyee école si lan la dem bi moom sax def doon dem na ba cm bi mu duggee école mësu redoublé ku mënoon jàng la woon après papam ne ko comme aw ma sàmmkat damaa bëgg nga bàyyi euh, njàng mi nga dem sàmmali ma mais bu mu demee bu demee sàmmi ba ay 11 heures xoolal day bàyyin foofu nag yi daw si si kër gi mu ne damay jàng ma ne ko monument jàppale ma rek mhm. comme sa papa nee na pour nga sàmmal ko mhm. ma rek saar nga sàmmal ko mhm. mu ne vraiment man dinaa sàmmi wante njàng mi moom a génn ma ne ko dema rek nga jàpp si yàlla xoolal nag muy dem di sàmm di sàmm ba màgg ba mu ay am ay rakk yoo xam ne ñoo ko desal si nag bi mu léegi nag damay bëre ji papam ne ko munoo dem wuti métier nga bàyyi bëre mu ne man daal man comme njàng mi raw na ma man damay bëre ji waaw mu ne ko bëre nga bëgg mu ne ko waaw moom laa bëgg mu ne ko ah, demal comme mom nga bëgg mhm. yal na la ya-, yàlla jàppale si li nga bëgg mhm. ñun tamit ñu ñaanal ko mom mhm. tamit mu dem ci lamb ji ngeen ñaanal ko ngeen tok ba monument di indi ay drapo wa sa ay sa ku ceeb la njëkkoon indi ñu démé bëre ji fi ci école yi bobu li mo amone fin d'année après ñu togg fofu mbapat mu daal di jël drapo bi sa ku ceeb mu demaat seeseen fu ñuy wax seeseen mu indi wa sa ku ceeb mu demaat jilaas mu bëre foofu bor set mu war a dellu sa làmb ja après ñu ne de xaw ma dafa tardé woon xaw ma ñu ñu ne ko tirage baare nañ la mu jege foofu jilaas ñëw ngeeñeen ñëw ba ngeeñeen daal di bindu foofu mu jël ñaari saaku ceeb saaku cinquante ak saaku cent vingt cinq kilos waaw moom la indi fii keroog léegi bu mu commencé di indi saaku ceeb bi di indi ay drapeau loolu yéen ay parents ban yëg-yëg ngeen amoon Ah, xana gëna gën rek mais bu ko indi won mhm. dañ nan bu len ko lek mhm. tantam bi sama mhm. wujju bi moy yenu pan bi dug ci biir quartier bi mu ne monument neena na bu ñu bi wa na ko sarax ci biir dekk bi non la doon def daf ko doon sarax fii si koñ bi yëpp daf ko doon sarax wa ay drapam yu ñëk ba mu dem nak di indi ay nak wa bi mu jëkke indi nak na ngeen lan ngeen def xana ah, xanaa rek yaay di fecc fi ah. jon waar la njëkk a indi nag mhm. waaw nag boobu jon waar lañ koy woo mhm. mu demaat ñoo ñoojoor mhm. jële foofu nag ñu koy wax mari jon waar nag boobu mu ngi si kër gi mu demaat yaayem indi foofu ñaari nag nag yaa ngi fi mu demaat fële jaxaaw indi foofu nag boobu nag boobu jaxaaw lañ koy woo léegi nag yaa ngi si biir kër dañ koy ñaana rek yi lamin ñuy ñaan yàlla nag muy dem nag ba ba indi la yow yow tamit sa wàll si nag <laughs> moom sama waay la sa waay la moom dañ lay dégg de dañ lay dégg chaque jour dañ lay dégg ah, waaw dañ lay dégg surtout bi mu demee fee acoom ah, bi bi mu demee foofu dégg naa li nga ko waxal foofu uh-huh. dama lay ñaanal rek Lamine dama lay ñaanal bu baax a baax a baax baax gën a kontaan rek mm-hmm. yow suñu yaay ju baax nga mais monument fu mu toll si làmb ji nekk xale yow lan nga koy ñaax ak yeneen mërëm mbërëm yi nga xamante ne du ñàkk ñu seetaan li ngay wax nii nii da mm-hmm. la ngeen di ñaax nan la mbër war a comporter vis-à-vis ak ay ay parents am ay mag ak ñu mu dëkkal ak ban comportement la mbeur wara mëna mun yor daal ah xana gëna yaru rek wa té wañi dox bi mhm. xam fi ngay waxé mhm. xam fi ngay dox mhm. waaw ndax toujours dina am ay nit ñoo xamné dañ la ñëw pour yedd am ñoo xamné dañuy ñëw pour yobbu la mba yobbu li ngay wax wa ndax ya ngi tiitaru si li ngay am wala deet loolu yëpp dañ ko siy wax wa ndax gis nga boy boy wut bu ci bu ci bu ci naan sax morom yi maaleen leen raw dugg na fi génn na fi pour wanewu loolu baaxul lépp lu am rek nga sant ko waaw nga sant yàlla bu baax wanewu mbaa di di di waaw loolu baaxul ci koy wut moom sax melul noonu melul noonu de melul noonu moom waaju kóol la wax dëgg fa yàlla waaw kay mhm. ku baax la de aca yaay booy gërëm nañ la bu baax a baax maa leen gën a sant nañ la kontaan rek kontaan rek di waajal bés bii rek wax ndax teeluñu koo yëg mais buñ ko teeloon yëg mhm. du demee nii sax lamin waaw gën a kontaan xanaa lu yàlla tudd rek mhm. dafay am waaw ak bés bu ko yàlla tudd mhm. ndax lii mësuñu koo gis si biir dëkk bi daf ñoo jaaxaloon mhm. waaw mais yàlla defar na ko xanaa beneen yoon boo fi ñëw ba ñu yëg ko dañ lay yer reyal nag <laughs> non nii rek baax na na simple rek yàlla de ok jërëjëf yaay booy <laughs> ngeen jëf waay ok soxna si ça va. ça va si jàmm. waaw. tur bi naka la. Ndeye. Ndeye naka. Ndeye Thiamane. Ah? loo bokk ak Babou moo ni ma am. moom sama jëkkër la moom sama jëkkër bu baax koo xamante ne ku ne lay respecté. Uh-huh. xale bu ndaw sax su ko gisee. Uh-huh. da koy respecté ku baax la daal dafa baax trop sax. Uh-huh. di ko ñaanal nag lu mu bëgg si àdduna yal na ko yàlla yal na ko yàlla defal. moom ku baax la moom. waaw lan nga dundee fii si biir kër gi. Babou moom. xanaa rek. <laughs> en tout cas daal man ah, ah. may wax moom mooy moom moom dafa baax sama jëkkër di moom dafa baax moom ku na respecte uh-huh. léegi loo koy loo koy yokk wala loo koy conseillé xale nga mais ak ñu koy seetaan pour mu gën a góorgóorlu si làmb. xanaa rek mu góorgóorlu. Uh-huh. parce que loo gis tamit ab lay àndal. Uh-huh. it moom. looy def ba ci sa jom moom. day baax soobee yàlla incha allah. Ah. Mm-hmm. ok jërëjëf kii nag soxna si nuyu nañ. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Hady Sarr. ak sama mag la. sama mag la. waaw mhm. ah. ñoo bokk benn papa. Waksi a bokk benn papa ñu wax ngeen nekk kër gi mag Judo fi magandoo fi yaroondoo fi. ah moom ne moom jàmm rek la ñu seex moom. Mhm. Ah, nit ku baax la. Mhm. bëgg nañu. respecté na parents yi. essence koy dañ koy ñaanal yàlla may ndam. essence toog nag ñoo koy ñaanal daal. Ah. waaw waaw.

dëgg la kay suñ doom ji di bëré ana baax yaru teey ñun daal xamal ko dara benn problème amu ko baax na yaru na teey na bu la rombé dina la nuyu bu xeyé dina nuyu mom dal amuñ ci mom benn jafe-jafe mom dal na mom kay dañ koy ñaanal yalla rek ca kaw ca kanam rek waaw yalla jappalé ko bu baax baax baax yaru na teey na maandu xam na nit waaw ñu koy ñaanal yalla bu wër li muy def ni yalla na yalla yok katan bi may ko wér gu yaram gën a dolli kàttan bi si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ok jërëjëf <laughs> yaay boy isim nam inga bang koromak nam gon Mi mi mariama jox ah. oyel mari jox ndigi xay deti do bi nun aref babu akoyel monument janda aref onte ndong aref ne. afiyate ndezilda ka anone ma sha Allah koy gor gor lu ha baax baax imbadit wax dëgg fa yàlla a koñale walla saax le fop a a ngara a moof meeke comme nuuno yarun meeke no saax walla meeke no mbine kum waago lay in na Babou o Ndiadio nannumo seede kum daal waago fi'na ten Babou Sarr Ndiadio mbaax o yaru a an fogum a an waajurum i e Babou koy moom o kiinu maanooxu yoo mam o kiinu maanooxu yoo to o moom o maanwanga rek o seereer na layaa yee o ɓayo fa xoolangaa yoon fo o maak e babu sar mom o xene mom ga i ngajin fo roog rek i mm-hmm. mi fe na gen ra fa yu'um fi fi'irama a fi'iramo kene mm-hmm. a yaay fa maako te fi'a xam mm-hmm. laya dal to ando dal, daal euh, na wal yu'um um. kupumo ta laya xam yam okin kiin o ndeɓandong waaga refu sax na ando naye refe ga babu i mboga ga i ñamano roonu leng to keke na fi kiram dal ka andona e dal ya, eh? nda do ma xam hmm. ta o njaajum jum mom ko mom yar wa ateya hmm. anda o fog adama ya. o kiin ndigu ta ref no njom no xaro o conse kan wala xala o baat kan pour ta moƴo goor goorlu pour wa waago fat tok ta faj hmm. ya sam ya lu xe dimle in i a goor goorlu yam o kiin mom a jega ka andoona o ɓekangan no xeeñ lo roog xana damtongu ten ten ka bugin na ta ref o ndeɓandong ka tane a to roga damtaan it i ta moƴo goorgoorloox a paax i a bugaan daal i a bugaan yaasam roog Yàlla a paax a ɓisin aareer na iyo ok joko njal jërëjëf waay yaay bo i simna maxey jaɓang nam gonle Fatou Ndourone em Fatou Ndour mi Lamine Ndem Lamine Ndom Lamine Ndom waaw kay Ndom nun a ref o ndeɓandong Babou a xoyel monument a ref njom ne a fiya wax deg ka andoona yee machallah a mosa trop xar waago lay in na ten o njaƴananum o nam nu yartun meeke na koñ ale keke nu mbi'idna de wax kam in keke place a refna a lale ten a fañ bon mo juleyata fapu me xaƴeno fek no keke rooga yokun fata xaƴel ten rek i babu yit koy njaƴ u yaru yo mi ref maag ye um in fa ye umo mbog faap mi ref ya makum nda mbin in me in ma bo ñaal nexe babu wa yong mbina ley ke fi ke bo yata gata yabat ke u donum ndigi xaro askan pour te ɓaatoor tin no a ne a goorgoorloox rek i yaasam rooga damtin no ke ta bugna yaasam a ci'inu wod yaasam xiiwal fe ɓaatoox to nuun o yaasam rooga damta nuun a paax yaasam ku nu mbugna rooga damta nuun ten jerejef Lamine Long ok joko njal <laughs> nuyu nan no wala i simnang njaaɓaaxoom nam gon le ye Adama neem Adama Seen Adama Seen xawaago layina babu fo xaro ñanan ka babu xaro ɓaat lay ka babu ka ta ɓaatoor sina ba wax deg fa yala njom ne ka ta waago fadik tooke took fa babu de mhm. kem xeɗanan mhm. kam xeɗanin rek rooga ci in wod fo o xuud mhm. i a dimle in no ke ta fiya a damtin parce que ba bu keta via a toro mhm. i to okin mom a buga ngati mhm. ko waro dan en rek keta bugna rogo yala de dam tin ten bu o njaajo ba o njaajo yar wuyo mhm. a anda wajurum wa deg wa yala mi ve ko ga aga xaye o ndeɓ ya den o refum fog yaay den ne ta bi na bi ayo umrak ne nene ta bi a ya. i to o koy deg neta nanna nange ɗasna ndelo ten o kiin a reɓanga o kiino pa mu bona ko waro yan to o njaaƴ moom comme o to reta fule sen ko waro leyan rek te anda nete warna fi fo mete warna reef fop i ngeɗanan in fop rek rooga yaal a damtin i rooga ci in o wod fo o xuud rooga barke an calel ke fop bo in fop i ndaaw teen i kaaga soomum xeɗanan nam gon le ndey ne ndey nam ndey kande ndey xar waago lay na baabu fek andoona nu nu nu ndefu voter meeke ta refu ɓiy nuun a refo ndeb nuun nu yarin meeke na kooñale baabu kay wax dëgg fa yàlla a faaxa a yarwa a joxa o kiin respect wax dëgg fa yàlla bëgg o pog kiino paaxoo yit na rek yaasam rek foogaa ci daal kete bugg na ci kaw ci kanam rek mhm. baax trop moom wax dëgg fa yàlla mhm. kete bugg na tamit yaasam roogu yàlla dam tinteen avancé kaaga daal ñaan nan merci jërëjëf wogoy tawaxe nam ne Roqi Faye ne Roqi Faye mm. xa waago lay in baabu babu babu da ajegaya ajegayin mande abu gafa ko yayung ateranga in in gen tan ngen oh. na mena ko in we nyana nan rek kita jala ya sama surten na jam oh. ba jirinya in bug na te ya sama jegim iya ikai nen jo kanu na jal nun me nya na bugar men oh. ya sam ro gadam tanu ko bug na nun jegim nun bat fa jam pin kenun wada ada amin dere yaay boy bona ma nyaaja ne ken o ndik rek nam gon Binta Faye Binta Faye wo xar waago lay na baabu ke waagma lay na baabu te ref o yaraxum fo o teeyum fo an nawle yu um, nawle bo um, fo o nawle um fo o maagum daal oxu refna teen a ci'aan i cer a yarwa a teeya daal wax deg xumbe daal no dara o donol teen ten jegun a maan wa a waa kam mbine bo roog o yaate an ke rew monument xaye kam mbine ndiiki i ngaƴtina roog o yaal rek xeɗan roog o yaal rabdin xeeñum a paax a damtin i moof bo mbuudano télé ke waaw yaam a yarwa and a nawleen a nawle bom and a nawle fapum a ci'a fop cer daal waaw ka i ngaƴcina roog rek yaam i mbaage layo no ke ten bata fag sax monument yarwa wax deg fa yalo yara xola ten daal waagano lay na sen a yarwa maan wa waaw bilaay xaƴcina jërëjëf kay merci aca yaay bo i simnang ah, maxey xirooxang nam gonle roqe Senghor roqi Senghor ka week ceeb ke fop ka week a jayna meke xaye wo paangun <laughs> Senghor a xay <laughs> a jega ma maroona xa mo mana o kap fo o téléphone um comme ndiiki ah, iyo xay i ɗeetiida babou a refo ndeɓandoong a ref njom ne a gor a goorgoorluwa ten a fi'a résultat nun ndef ya um meeke xar waago lay in no andoona yee def monima xaye ngi yaro ko yo to bu ganu ke ke on wa ila rek ro tintel damtin teen gor gor lo i kata jegna re dal daal jombiran yaro xam mom ta anda o kiin hmm. mhm ina xedanan rek te retna bora door ke daal a waago ɓisida ay million million i xeɗan rooga damtin a to te ref ka maluna in way ngirwa fop ok jaajëf in way njaɓanga paax nam gon leye aissatou aissatou ndiaye i ngar ɗeetiid xaye andoona yee onda ndaano fo ne waagan ma laytin a ref o korof babu babu kor mi rek layan waaw ndiig xar waag o ley'in na babu o njaaƴo nanumo nama yoorofu mene waaw ye ta fodna neeke bo xee mosiim ga ta xaw ɓiinu kiin mosiim ga ta wenu maak mosiim ga ta lay maak ka feɗaruna bo fap mu xëy me xëy faapum ka gar me yaqwaɗan ka babun kala ke ta layaame babu kala me ret ken kaala ke njog ne moƴanum me a hate ime ya koy nu kadin nu jomne me ya sam roga damtin tabuk jomne koy a bug ke tarefna a wag ke tarefna a dam ke tarefna i wax rek babu dal njaajum paax e nun weke ngarna ya sam roga wasa nun nu ndef men bo no koy bo ɓooda xa ɓiy nun a yoqana nun i nun nu mbi'a i ɗaaya ka i ɗaay ka i ɗaay bo waagim faley sax i contanam torop i lamin nam lamin dong dong dong dong sala ya sam roga dam tanu yo koy way jara ngeen jef nu mbi'a fop nu mbi'a fop jara jef waay merci merci merci ma ma moni ma Ndianda dafa jël lamb bi te ko ci ma sala da kay jar ndax bi nekké xalé xale loolu la defoon pension loolu la reevoon waaw waaw masala